déclaration de politique générale qui fait polémique aujourd'hui ci ne mi ngi ci règlement intérieur bi loi organique bi tenir na ko en compte ñi jàpp ne c'est du faux comme démb les députés de Yewwi Askan Wi que nekkul ci règlement intérieur bi que Ousmane Sonko amul obligation euh, pour def sa déclaration de politique générale euh, loolu ban leeral lañ ci mën am jërëjëf Fatou di am euh, juste regret que les principaux concernés ne soient pas là parce que doon euh, rafet lool ñu teew fii pour mun a leeral askan wi di fàttali nag ne que député euh, serviteur la ndaw askan la fu ñu ko oo dafa war a teew pour leeral askan wi ay mun ak munuma yooyu dañ ko war a bàyyi donc boo taataanee baatu askan wi bañ fal la. Mhm. fu ñu la oo da fa war a teew ngir. gindi askan wi surtout débat bu am solo boo xam ne ça ça vous concerne en ci. déclaration de politique générale déclaration politique générale du choix obligation la mhm. article cinquante cinq de la constitution c'est dafa leer daf ne que premier ministre bu ñu ko nommé dafa war a def déclaration de politique général loolu c'est très clair maintenant est-ce que encadré nañ ko dans le temps constitution bi du dugg ci détail donc loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale mooy ñëw wax dans quelle modalité la ñuy defee déclaration de politique général boobu mhm. boo demee ci article 97 règlement intérieur assemblée nationale dañ ci wax ne que dès l'installation du gouvernement le premier ministre fait une déclaration de politique générale qui doit se tenir dans les 90 jours dans les trois mois maintenant il faut savoir que euh, règlement intérieur assemblée nationale dañ ko changé woon 2019 mhm. dañu dindee poste premier ministre ci gouvernement bi donc lépp lu doon laal premier ministre ci règlement intérieur dañ ko dindi woon donc ñu delloo si premier ministre bi ñu delloo si premier ministre député yi voté wuñ loi bu bees pour delloo si pour def une mise à jour du règlement intérieur mm. à l'époque bi ñuy installé quatorzième législature bi ci ñi njëkk alerté la bokkoon ne leen document bi ñu leen distribué jaarul fi mu war a jaar parce que dafa war a nekk une proposition de loi ñu càmbar ko à la commission des lois indi ko plénière ñu voté ko loi organique la bu ñu ko voté balaa ñu koy promulguer dafa war a dem conseil constitutionnel mu xool est-ce que méngoo na constitution bi balaa ñu koy promulguer loolu yëpp defuñ ko alors que en 2019 c'est ça qu'on fait xam naa xam naa ko bu baax parce que man maa ko bindoon en 2019 modification règlement intérieur maa nekkoon rapporteur mm-hmm. donc li am problème tey ñu ne ñu ne c'est du faux parce que en deux mille vingt deux man alerte na. c'est du faux. c'est du faux. c'est du hmm. faux parce que un document. parce que y a un vide c'est une loi qui n'a pas été votée. y a y a un vide foofu aussi. c'est une loi qui n'a pas été votée. mooy édition deux mille vingt et bi. ça n'a été voté. d'ailleurs un des présidents de groupe parlementaire waxoon na ne soxlawul ñu koy voté ak yooyu parce que constitution bi moo ko gën a koy cetera ce qui est une aberration. Euh, euh, li li li am ba am mooy que ni alerté nañ man alerté naa en deux mille vingt deux Alioune Souaré alerté na doyen Doudou Wade alerté na président Mamadou Lamine Diallo bind na leet président assemblée nationale ne ko nañu retirer document bi te ñu voté loi bi mais kenn ci ñoom intéressé wul ko woon liggéey nañ ci voté ci ay loi voté ci ay budget déglu ci Amadou Ba déclaration de politique générale dugal ci motion de censure tey ñu jóg ne c'est du faut ça veut dire que c'est un c'est c'est c'est ils dans un système à géométrie variable tey bu ma arrangé ma utiliser ko suba bu ma arrangé wul ma ne baaxul donc il faut que ñu arrêter loolu mais au-delà de tout ça mm -hmm. au-delà du fait que waxuñ ci même bu fekkoon ne tey euh, règlement intérieur bi fi nekk joxewul délai joxewul dara xel nanguwul ñu jox la lu toll ni gouvernement nga ne damay toog six mois wala un an doog a ñëw wax askan wi nii ak nii laay doxalee non quand on prend un délai de trois mois c'est pas fortuit trois mois yooyu ñu jël dañ ko jël parce que moom moo correspond ak li ñuy wax délai de grâce bi délai de grâce bi gouvernement bu bees la yéen a ngi doog a toog ñu may leen ngeen càmbar li fi nekk xool lan ngeen war a def ñëw wax ak askan wi parce que mënuloo tàmbali liggéey bu bu toll ni programme développement d'un pays nga ne duma wax nit ñi objectif yi ak yoon bi may jaar loolu amul sens donc déclaration de politique général lu ñu war a def la nañ bàyyi caaxaan yi bàyyi yenn affaires yi dañ ko war a def nañ ko def ci anam yi mu gën a rafetee askan wi ñoo leen fal di xaar ñu wax leen fan lañ leen jëmee ak naka lañ leen fay jëmee. donc yow vous êtes d'accord Euh, ci euh, li ñu wax ne euh, nekkul ci règlement intérieur bi mais la la méthode da nga jàpp ne stratégie politique la boo xam ne dañ ko teg pour pour daw sa cette déclaration politique générale wala. absolument pour man c'est juste un pis-aller pour bañ a def déclaration de politique générale en tout cas ci jamono jii ñu toll maintenant. Euh, le fait que l'édition 2021 bi député yi depuis le début de la quatorzième législature ba tey le fait que ce soit un document qui n'est pas légal mm c'est avéré parce que ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale pour ñu pour que ñu delloosi article yi ñu dindi woon ci règlement intérieur bi ça doit passer obligatoirement par le vote mënuñ jog rek bindaat ko nii distribuer ko nit ñi ce n'est pas possible. très bien alors oui Ahmadou euh, ci sa xam-xam màcc ci ci wàllu yoon aujourd'hui euh, jur na coow. parce que ñu ngi wax ne ñu ngi ko dindi woon ci loi 2019 tiré 14 le poste de premier ministre keroog bi le président de la Macky Sall jëlee dogal ne supprimer na poste premier ministre bi eh, ci loi organique bi nga xam ne moom moo tënk règlement intérieur bu assemblée nationale eh, dugalaatuñu ci poste premier ministre mais même si c'est du faux comme ni mu avéré et honorable wax ko eh, su fekkee ne ci la ñu doxal boobu ak léegi nga xamante ne dem nañu ci voté ci ay loi def ci motion de censure son prédécesseur Amadou Ba def ci déclaration de politique générale est-ce que tey mën nañu ko tënk foofu rek pour bañ a def déclaration de politique générale. bon Fatou Abdou ko waxee. je crois que monsieur Mon Mon Montey moom am na benn explication boo xam ne ni def na ko par rapport en tout cas à la question initiale mais je crois que c'est un scandale en tout cas que au Sénégal. li nga xamante ne tey ji moom mooy suñu institution parlementaire bi nga xamante ni dafa am une fonction très très très importante une fonction primordiale qui consiste véritablement à légiférer mooy faire des lois mais au-delà de cette fonction primordiale bi nga xamante ni moom mooy légiférer moom moo am dayooy contrôler ce qu'on appelle l'action du gouvernement tey bu ñu demee tey jii ba nga xamante ni Sénégal ñi ngi wax ne am on a constaté du ci ay loi yoo xamante ne ni dafa nekk au niveau de l'Assemblée nationale c'est une question en tout cas qui mérite qu'on s'y attarde qu'on s'y attarde pourquoi non seulement Assemblée nationale moom mooy refléter l'image en tout cas de notre institution parlementaire au niveau mais bu situation bu mel noonu amee peut-être ñu ngi wax ne am na ay actes yu bari yoo xam ne jël nañ ci le premier ministre def na ci déclaration de politique générale mais loi moom loi la c'est-à-dire lépp loo xamante ne ni jël nañ ko depuis temps bi nga xamante ne tey jii nii loi bi den luwaatul assemblée nationale ñu fotewaat ko parce que en droit dafa am ce qu'on appelle le principe du parallélisme des formes le principe du parallélisme des formes voudrait que ce qu'un décret a fait un décret peut le défaire ce qu'une loi a fait seule une loi peut la défaire à du moment où on avait utilisé la loi en tout cas pour supprimer yenn dispositions yi parce que le président de la République de l'époque avait jugé nécessaire de supprimer en tout cas li nga xam ne moom mooy poste premier ministre buñ delloose waatee restauré waatee poste boobu noonu l'attente la plus naturelle la plus normale mooy ñu delluwaatal assemblée nationale mesure n'a pas été respectée juridiquement mën nañoo constater ne lépp loo xamante ne ni Sénégal mës na ko jël ci dogal dafa nekk des actes illégaux des actes yoo xam ne day nekk en contradiction mais koy def mais c'est ça la gravité et, c'est pourquoi même moi à que ñoom ils ont quand même introduit une motion de censure moment boo xamante ne règlement intérieur bi c'était du faux muy les députés